léegi yow moom gën a xam ndax jàng nga. waaw man damay jàng naa jàng naa tuuti rek. ay sem 3 yooyu noonu quoi. ay sem 3 yooyu noonu laa bàyyee quoi. waaw sem 3 waaw. sem 3 daa am si daa am si classe yi. <laughs> yow kon yow jàngoo de <laughs> yow jàngoo de ah saay saay kon yow yow jàngoo de voilà. ah jàngoo kay. <laughs> ban école nga doon jàngee. man benn école fee bu nekk fii. jàng naa daal monsieur maa ngi sant sama monsieur bi tamit di ko remercier xam nga di ko wax mention spéciale moom ak sunu waa école suñu élèves ñi ma bokkaloon classe yëpp waaw. ma en français ci coronavirus bi. ma sensibiliser wu mooy comme wax ci nit ñi. waaw kon en français y a pas de parler quoi waaw kon va ici ceci par par par ceci présentation c'est coronavirus tous les tous les. waa léegi maa ngi wax daal sur tous les tous les tous les tous les sénégalais ceci partagé wu cette concentration les coronavirus qu'a dit ceci les les les les les les les les comme ça ceci c'est regarde tout tout yaa de yaa de fët ndax xam nga quelque yaa fët que lui yaa de fët c'est c'est virus c'est don de sang si si deret qu'a dit après la les les les les comme ça les comme ça les comme ça les comme ça les coronavirus ndax toi et moi Toi et moi, c'est coronavirus, toi, c'est voilà, c'est toi. C'est pas bon. Qu'a dit Quand tous les, tous les, tous les, tous les, tous les adouna, quand c'est une concentration normale, c'est poignet, c'est laissé, toi. Ça, c'est moi, c'est moi, c'est eux, c'est toi. Qu'a dit Ceci, les corona, euh, les patels, c'est bon. Après, tous les, tous les, tous les, tous les, tous les moi, il finit, c'est ah, assemblement. Qu'a dit c'est toi ah c'est se c'est lié c'est bon waaye y'a pas de saisi c'est donne le poignet c'est pas bon c'est pas bon ndax xam pourquoi c'est pas bon y a des après ceci cor euh, ceci micro là qu'a dit ceci mm, c'est donne c'est donne le comme moi ah c'est c'est le poignet donne qui vire se toi kon c'est pas bon waaw kon kon qu'a dit moi c'est resté tout cette concentration c'est ñeg sa bopp quoi c'est bon